en tant que sénégalais je suis de tout cœur pour que nous réussissions. c'est mon souhait parce que moi sama moi sénégalais. Nabi Vision. réussir mission parce que si ko réussirul parce que homme. parce que nous nous y a même pas neuf mois on était ensemble sur le terrain pas pour que nous accéder au pouvoir mais parce que. problème yi Macky Sall tegoon Sénégalais yi moom lañ doon xeex. léegi sama vidéo bi maa ngi ko jëmale ci Y'en a marre ay kalaasu caat gi yéen da ngeen a ñàkk jom senegal amul lu fi ñor ban koy màcc yéen yéen diiraa nguuru Macky Sall li ko tàmbalee deux mille dix neuf ba deux mille vingt quatre mu jeexal kenn gisul leen benn pas bu ngeen fi teg buy wane ni Macky Sall yaa ngi jaay doole. mais lu dul da bàyyi ba Sonko ne ci kaso bi ngeen commencé di jug pour jàpp ni Sénégalais yi ñun defuñu de <laughs> billaahi du xaar ñun duñ ay dof mais jegewuñ sax fu ñuy dofee hmm? yéen benn temps gàtt ngeen fi jigéen mooy bi Macky Sall jaayee ko doole ba tëj ko ci kaso bi ngeen jàpp ne ñun ngeen ñëwee nag waaw affaire yi nii nangam ak nangam ñun ñi ngi xalaat de da ngeen jóg suñu xong mais nekkuñu ab liir ñun xong nañ mais du ñuy liir bàyyi leen seen caaxaan yi léegi nag comme tey moom ku neex tëb di ne di ne fi di mbel mbeli di wax naan dafa doy nangam ak nangam woote beeg jàpp bi fii ku fi def lu deful dañ lay woo dañ lay jàpp muy ñun patriote yi ñëpp a ci yem ku fi wax lu waxul dañ lay jàpp woo la laaj la li nga wax foo ko teg wala nangam ak nangam nga indi ay preuve mais nag la fi amoon dootu fi amati. fii Vision. waaw ay jàpp la yooyu di la yóbbu mandat dépôt di la xaarloo ay 6 mois yooyu amatu fi yooyu jeex na tàkk. mais dañoo bëgg ngeen régler te nekk ay nit yéen waa Y'en a marre surtout caat yow amoo fi loolu lenn loo fa mën a jaay Sénégalais ba mu saf ñu bu ñu waxee ngay jaaba jaay xët-xët yow da ngaa sax barki Serigne Touba da ngaa dof xamoo li xew yéen gaal gi da leen fee bàyyi yéen waa Y'en a marre gaal gi ci boppam moo leen bàyyi kii la booy nekk di dee ñu leen di tiiree bal di xeex ngeen leen patt pataaral yéen ay maral taat ngeen mais nekku leen comme Y'en a ay maral ngeen ñun Sénégalais yi nag ñun ñun jeunes yi bokk xam nañ leen bu baax a baax ñun suñ combat ñoo koy porté suñu bopp mais ñu leen ci yéen amu leen leen lu ngeen fi wax bañ topp leen ñun Sonko ak Jomaa la ñuy topp ku fi wax lu waxoo dañ lay woo ñu ñu teg la ci yoon jaayum kenn doole may leen ñu jàmm ñun lijjantiwul leen seen conférence de presse yu ñàkk fay dee ngeen toog di jéem a naan ay dafa doy ñun <laughs> ñun ñun ñun leen de faale wuñ leen ay kalaasu Alioune Tine yeeg man sax maa ngi baal foofu Sonko ndax ne woon na Alioune Tine mooy loolu mais Alioune Tine ñun lijjantewuñ leen lu leer lañ leen wax jaayuñu kenn doole ñun Sénégal lañ am ñoo ko bokk ñun yëpp xam nga li ñu daan woote mooy ne rang jub loolu lañu ñu woote ñun moom jàmm rek ci la ñuy doon mais nag Sonko moom sawaay Naby Vision du tooñ du wax lu du dëgg ñun patriotes yi loolu lañ jàpp ci Sonko te loolu lañ gëm mais nag ku ko dépassé benn baat comme na nga ne comme ni ngeen daan def di ko dépassé di ko saagay ndey affaire ñaaw yooyu loolu moom dootuñu ko. caat caat yow da ngay caar caat kenn gëmatul la caat bi mbedd bi di xeex ñuy jàpp say moroom foo nekkoon caat yaa ngi laye na da feebar daw dem tëddi France ba xeex bi jeex comme yow faloo bàyyi am lay wax. yow faloo ba ñuy jox leçon de morale yow bokkoo ci ñuy fan da ngaa war a toog yow dañ yow yaaroon deuxième deux numéro deux Karim Wade numéro deux daw génn réew mi ba affaire yi sedd nga ñëw ne yow tey daa am looy wax yow lu ñu la jox muy xaalis ngor ko gën luñ la jox muy alal diinaa ko gën luñ la jox muy privilège dignité dignité moo ko gën ñun dañoo ànd ak suñu personnalité ak suñu gëm réew mi ak suñu ngor ak suñu diine ànd ak loolu xeex ci mbedd mi ba am ñu dee am ñu génn réew mi am ñu yàqal seen liggéey ba tey projet bi gañe yow bokkoo ci ñu ko fal kon amoo looy joxe leçon de morale ñun gëmuñu la gëmuñu la bu yeboo nga xam ne kenn gëmatu la yow perte nga. ñàkk nga loo fi wax. cat laay waxal tey ak mbugaan ngay dane yow mbugaan xamal la booy ngeen may ndey nit ñi jàmm booy may leen nit jàmm réew mi mënu leen waxoo waxoo ba duñ ko defar yow loolu bu ngeen ngeen dóor ko seen bopp fekkee nag caat fal kilifa foog na ay néew nit dof moo tax a génn Macky Sall fii la toog ñaata weer génn génn leen wax ba ñëpp naan ñëpp naan dañ leen ger dañoo da yàlla tax ñii man la gisee ngay daagu man dama yaakaar ab jéeg mooy dox man dama tiit sax mooy waaye mbugaan doo ñu may jàmm ngir yàlla mbugaan mbugaan est-ce que amoon na fii de mémoire yow Kamu kan gemuk nih biru wér nga de. yéen ay caat ak ay fumaar yaa la maale xool boo demoon fii nee na mu géej kaay frère la Cheikh Anne vidéo bi moom xam di ngeen ma wax ne ma Cheikh focus koy barki vidéo bi mënu def man daal dama sànq laa seetaan conférence eh, eh, de presse bu caat doon def bu après ma tamit kilifa. intervention bu mu def ma toog mënu mum téye sama bopp quoi ma ne xaaral foo mu am lu ma si sànni waaye di leen fàttali le 17 nañ ci focus après bu ma paree vidéo bi ñu continuer ci le 17. Naby Vision fexe jëli carte yi ku déposé wutoon sa carte ku déposé woon sa carte te jotagoo ci dama jëli carte temps temps bi dafa gàtt ma ñëw nag ci caat ak kilifa voilà euh, kilifa dafa lay layal na caat quoi mais caat daf leen day danoon woon Sénégalais yi ne ñib si naa. Amérique laa nekkoon waaye ñëpp si naa day yëglu xam nga Sénégal dëkku naante la dëkku naxante la caal si naxante la nekk mais kilifa bu man mënu ma comprendre kilifa muy défendre mu ne voilà caat dóor nañ ko ba yaram bi tas ñu mu dem Amérique faju ji voilà mais kilifa caat deewul de dafa am ñu faatu te kilifa yow xam nga li xew quoi yéen ay naante ngeen xam ngeen li xew du ngeen ay ngaak mais xam leen ne sénégalais yi leen seetaan tamit ay nit lañ yu am yu am bopp léegi dañoo yeewu boo ne waxul ak Sonko waa Ciss waa Ciss lay waxal waxul ak Jomaay waa waa waa Ciss lay waxal yow kilifa kan ngay waxal kat ban sénégalais ngay waxal kilifa mais caat yow tamit nga ñëw fëgg si taaw bi dóor dégg nañ la yegg si nga jegee nga Amérique fii nga nekkoon faju nga wér nga waa xam nañ ne wér nga ñib si nga mais xam nga lu ñu leen di xamal mooy Sénégal bii léegi nekkatul Sénégalu Ablaye Wade nekkatul Sénégalu Macky Sall dëkk dëgg la de dëkk bi métti na ñëpp Sénégal yëpp xam nañ dëkk bi métti na. xam nañ ne tamit ñii dañoo ñëw fekk réew moo xam ne réew mi dafay yàqu lépp ay yàqu réew mi Sénégal secteur yëpp am problème ñii juróom benn weer lañ fi def kenn mënul leen sujet si dara actuellement nii dëgg la si sis woo na ay tapalekat barki démb xëy bàyyi leen ne ñibbi leen duma leen tëj ci li ma leen woo waaye loolu alerte la loolu si sis yu mag yi dëkk yu mag yëpp si àdduna bi dañ koy def ñu xool dara nga def ko tey Naby Vision benn seexaan bu taxaw def vidéo wax lu ko neex bokkul ak benn leader bu dem si télévision toog wax lu ko neex man bu ma neexoon sama vidéo bi ma saaga président États-Unis wax lu ma neex kenn duma jël si mais bu ma demoon CNN tey wala ma dem si tele yu mag yi ne fii ma wax fa lu ma neex Biden man ak journaliste baak ñi ma invité yëpp kaso lañ jëm bokkuñu de leen boole lu bokk ñii nag réew moo xam ne secteur yëpp yàqu lañ leen jox mais booy ñëw di yëglu caat ñun xam nañ ne ñëw nga welcome welcome back to Sénégal yegsal dalal ak jàmmu Sénégal mais da ngay xam ne Sénégal bii du Sénégalu Macky Sall du Sénégal Sénégalu Abdoulaye Wade la patriotes yi neexaluñ sax seen leaders yi leen jiite bay neexal benn yaanaamaar wala ak nuñ ko mënti wooye mbaalu rek patriotes yi nag foofu laay daanalee gis nga dama leen xamal benn affaire dëgg la focus bi baax na de mais bu leen fàtte ne réewum coow la ñu nekk réew moo xam ne gars yi dañuy liggéey di coow ñii coow faw ñu leen di tontu parce que tey le président Diomaye président Ousmane Sonko dañoo jël suñu ñi nga xam ne ñoo daan dem ci plateau yi di défendre procès bi wala di wax xam ñëpp ñu nommé leen ay poste jox leen poste yoo xam ne mënatuñoo am jotu dem xaw ma dañoo amul jot xaw ma waaye gis nga ngir yàlla bu ko seen temps mayee dellu leen seen plateau yi dellu leen si plateforme yi ngeen di giddi askan wi parce que askan bi ñu yor bu leen jàpp ne peuple bu nekk France wala Amérique ngeen yor de da ngeen dañoo yor peuple boo xam ne ñu ëpp si ñoom maanaam dañuy topp coow coow rek la ñuy topp ay détails la ñuy topp boo yoree peuple boobu dafa laaj dafa laaj ngay communiquer ak ñoom. nabi Vision moo tax euh, focus bi baax na waaye nañuy communiquer tamit. lu bëri comprendre naa ko parce que euh, président Diomaye bu mu ñëwee fii dafa am ñetti ministres yoo xam ne gis gis naa leen dama dem si seen hôtel mën naa si site kenn kese ku mel ni Aliou Sall bi nga xam ne moo yor communication bi ma demee si hôtel am chambre xoolal ñaari taabul moo fa nekk ñaari taabul yëpp ay dossier la ak ordinateur ak tablet xaw ordinateur ak euh, tablet nga xam ne lépp si liggéey rek la nekk liggéey man dama ko dama ko dama dama ne ko non yéen lii ngeen di dund mu ne ma lu raw lii la ñuy dund Sénégal maanaam amuñu jot moo tax gis nga même Ousmane Sonko ñii di ko attaqué barke arxuraan gëm naa ne Sonko déggu leen bay am seen jot ba leen di booleeg six ba six di leen jàpp six moo xool ne ñii war naa leen jàpp mu jàpp leen moo wareen war a bàyyi bàyyi na leen maa ngi dégg nit ñi nag naan waaw lii euh, six lu tax mu bàyyi ñi Ousmane Sonko jàppul jomaay jàpp foog ngeen xam ne réew mi lii woon woon ni na six mooy jàpp Naby Vision loolu def leen ko si bopp yoonu Sonko jomaay nekku si six bi actuellement nii